li malal doog a wax nii dafa bëri si xam ne à la bu bu ma ne woon je passe sax du ma kii wax fa dëgg yàlla dañ ci partagé ay yu bëri bon fi ma fi ma fi mu daaneele foofu laay commencé parce que bu ne ku ñemewul doo doo doo jël nguur mais ñeme c'est quoi c'est fëgg sa dënn wala wala nga am stratégie wala dañ laa dee déedéet wala nga am stratégie ah, je pense que la stratégie de Amadou Ba par rapport ak Macky Sall waa été quand même beneen beneen affaire la je pense que c'est c'est c'est une autre façon de de de wane fit parce que wane fit moom laay wax ni c'est pas fëgg dënn wane fit c'est nekk njaacaar pousse waa ji ba ci miir bi c'est important mm-hmm. je pense que je pense que nan waxante dëgg ñun ñii ñëpp depuis des années boo xoolee Amadou Ba bi xam ne fauteuil Macky Sall bi bëgg na ko mm-hmm. quand bëgg na ko comment faire et est-ce que bëgg-bëggu mag fauteuil boobu moo tax moo créé beaucoup de problème yoo xam ne même bu ñu xamul suñu àqulaay taala lan la mais c'était perceptible il n'est pas resté ci gouvernement bi pendant tout le temps non am na benn ma nekku fi ministre des finances la woon ñu jël ko rétrogradé ko yóbbu ko ministre des affaires étrangères ouais. donc lan moo taxoon loolu parce que depuis des années vous savez bien que ni Amadou Ba bi fauteuil Macky Sall bi la bëgg mais nag muy yoru da doon yoru bu ñu nee troisième mandat mu ne bu ko bëggee ñu jàppale ko te nekkuñu fii ci assemblée nationale bi Farba Ngom jël jël kàddu gi ne booy wax da ngay wax mu leer kan la doon waxal est-ce qu'il a une fois en réalité vraiment porté cette possibilité de candidature du président Macky Sall je ne pense pas il a toujours non baale ma eggale rek il a toujours nuancé mm-hmm. parce que waa ji effectivement la doon bañ li waa ji naan quand quand on n'est pas d'accord on dit non mais il y une façon de de dire les choses boo xam ne c'est pas une position ferme et carré et depuis boobu parce que c'est intelligent mooy que oui bu ko defoon doon naa ko jàppale mais mooy suñu mooy suñu candidat troisième mandat il a toujours attendu réponse question bi ñëw mu nuancé mais jamais mu jël affaire bi porte ko noonu comme les autres à la limite ça a créé benn kii ñu ngi fi di ko seetaan ci débat mooy jour bi gars yi di buddi micro yooyu. Mm. kan la doon waxal mooy que wax ji leerul. Mm. parce que aussi moom laa lay wax ni stratégie la dafa am dafa am ñoo xam ne dañuy xeex fëgg dënn ñuy dóorante. waaw du benn et je pense que euh, depuis des années ñun ñii yëpp bu ñu waxal la yàlla xam nga ni euh, Amadou Ba mi fauteuil Macky Sall bi la bëgg Macky Sall mi xam na ni Amadou Ba bii sama fauteuil la bëgg loolu lay dëgg. Ah. mais fit aussi dafa am noo koy noo koy kii waaw je pense que euh, topp na li ngay wax nga baal man am naa benn copain buy xeex mhm. <laughs> en fait xe dafa mën xeex mhm. noonu laa mel mais xoola buuba billaahi waa ji du xeexee du xeex ak yow tant que sojoo trois jours <laughs> tant que sos moom tant moom sojul ba sojam ñor. noonu mais malal loolu. te tant watu woon ndel tamit. moom laa leen du xeex yow <laughs> malal mooy genre dama damay dawal. damay dawal ci corniche bi dajeeg euh, euh, kii benn benn benn Sénégalo libanais la ñu daje ci benn euh, tali bi xaw a mbëkkante yooyu waa ji mu ànd jabar ji ak kii moom ëpp nag. maa ngi ànd ak Philippe sama doom mu ànd jabar ji doom ji rek ne ma xam nga looy def di commencé kii génn. ma xool waa ji gis lu mu toll mu ay agressé ma quoi xam naa jabar di xool na ko ma seen gars yi di di di traverse ñëw di àtte ma téye ma téye coup bi bàyyi ba gaa yi ñëw naan riir rek ma dugal benn teel <laughs> rek xaw arrière arrière yi xataraayu kii benn booy ñëw ne ma xola sëgg ba ne ma grand yaay nandite waaye maintenant man noonu laay <laughs> la <laughs> man fa mu ma ne waa ji xola te xam nga buñ la dóoree benn coup devant devant sa jabar non buñ la dóoree coup sa jabar ak sa doom imagine wax ji coow li jëm na wóor na ma ni dix personnes yi moom dóor buloo du fi ama mais coup bi dugg na ay kii la donc dafa am façon xeex yoo xam ne émission bi dafa maa neex yàlla xam na ko I love the show man donc je voulais dire. je je je pense que je pense que bu doon Macky président Macky Sall day dawal. ci rétroviseur am bi. saa yi tourné dina gis ma waa ji naan ko nii. toogaat def nii loolu la après à la fin day indi problème donc dafa am ci lu malal doon wax man li may njëkk li may njëkk li may njëkk inter ñi may njëkk interpellé et yoruma capacité juger leen. wala di leen demande mais am naa liberté wax lu ma xalaat wala ma ma ma nit ñi devant leur responsabilité on a un pays qui s'appelle le Sénégal mu am ay dignes fils du pays ku mu ci mënti nekk lu mu tuuti tuuti lu mu mag tuuti ñu xëy décider ne ñoom dañu bëgg jiite réew mi pour man je ne fais pas le procès de la presse mais dama leen di interpeller si fii ak élection yi di ñëw ku nekk na nga def li nga war a def ñii ñu war a wane ñu wax seen programme wax lan la ñu namm pour réew mi ñu fexe ba ñu am accès ci médias yi ba ñu leen di gis c'est important et dafa commencé yàgg te des fois et ñu jéggal ma amuma benn prétention wu critiquer qui que ce soit mais am naa liberté wax lu ma xalaat mm. parce que des fois dafa mel ni le euh, gars yi ñooy dicter un peu ce qui doit sortir ci presse mooy que da ngay taal fii presse bi daw jël si nga taxaw mais du ñu jël yenn initiative yi et je vois su ma xoolee naturellement je vois beaucoup de candidats yu am ay profils yu am solo yoo xam ne amatuñu euh, visibilité bi ñu waroon am et loolu war nañ ci réfléchir parce que en dehors de du choix du candidat la prolongation de la bataille de bo de Benno Bokk Yaakaar ne doit pas intéressé les Sénégalais. ñu war a intéresser les Sénégalais yi mooy kii poser candidature pour nekk kii c'est important <coughs> sinon sinon amul njëriñ sinon amul njëriñ parce que fu mu nekk on est à cinq mois des élections présidentielles moi dama bëgg qu'on parle de Alassane Thierno Alassane Sall que Pape Djibril Fall que Anta Babacar Ngom que keneen il faut que ces gens-là qu'on parvienne à quand ñu fexe ba ñu leen di dégg ñu leen di gis sinon polarisation wu débat politique bi bu ñuy casse depuis des années entre Ousmane Sonko ak ak ak président Macky moom moo nar a continuer sous sur beneen forme. la la frustration des uns et des autres chacun a le droit yeewu suba ne man dama bëgg nekk d' accord ma quand on n'est pas d' accord on dit non on prend ses responsabilités et je pense que quand on regarde le président Macky Sall ak doole bi Abdou président Abdoulaye Wade amoon ak kilifteef gi mu amoon ak li ñu ko doon duusee mu am courage u commencé initier sax ay audit sur son fils. tout puissant moment boobu loolu moom mooy caractériser nit bu am fit il est allé vers ça ñun ñëpp au début dañu naan kii du def dara du am dara mu dem ba gagné ay élection ba nekk fi président nekk fi ñaari man mm. donc loolu ku ko xool xam ne loolu mën na nekk maintenant il faut pas que nit ñi ragal jël ay décision ku si jël décision nag na nga ko assumer mm. tu ne peux pas vouloir euh, li yi wax dëggal tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire tey jii nii ñi ñi ànd président Macky Sall ba ba ba mu kii il ku am droit wu dem def campagne nga def def campagne mais l'opposition doit exister parce que il faut pas ñu créer opposition dans le pouvoir mu jël la dessus sur l'opposition naturelle et je pense que loolu lu ñuy interpeller pële nit ñi ko parce que je pense que bis bi ñu tànnee candidat bi wax ja jeex na leneen li na des na des ci seen bureau yi ak seen réunion yi ça prend trop de place ci ci ci ci paysage politique bi et c'est pas normal c'est pas logique tànn nañu lay xew ca biir bureau ya na leen ñoom la intéressé audience yu ñu war a gis waxtaan nañu affaire et après so what tànn nga da mbër na dem kii léegi lii def ko ñun suñu yoon nekku si intéressé wul kenn mais sinon dina jël le dessus sur su quand je reviens un peu si sur mon ami Nami Diao c'est-à-dire pour moi pour man Benno Bokk Yaakaar mais fini et et je pense que je, erreur la sax man personnellement Diaw si li nga wax que ni tey jii nii suñu relation ak Macky Sall. sëy ba tas na non tas sëy ba tas na. non loolu nga bu ko jéem a rafetal. non non non nee nga nee nga seen diggante non. tas mooy que non nee nga kóllëre. no déedéet da déedéet da nga fi wax lu leer. peut-être que bu fi jéem a danga da ne li ngeen sekkoon ak Macky Sall. Mm. tas na. non tasul dafa non non kóllëre jeex na. c'est fini lu ruusukaay non yaa ko wax. ruusukaay yaa ko fi wax VAR VAR dafa am. non loolu jeex na mais. après <laughs> mais mais tu as tu as quelqu'un quelqu'un lan moo tax président Macky Sall am le pouvoir parce que pour moi honnêtement avec tout le respect que je dois. au PS authentique le PS n'existe pas l'AP la l'AFP n'existe pas benn euh, LDMPT n'existe pas mën ngeen jël seen récépissé yi jox ko waa affaire tuddee ko APR la grand euh, kii. tuddee ba ne ko du tuddee Benno Bokk Yaakaar man loolu laaj parce que pour man un parti aussi historique que que que que que le PS toog pendant. 12 ans yi war ci yokkaat yenn sax muy 17 ans nga naan damay wut pouvoir da ngay nit yi parce que ñi nekk yor parti bi yëpp ñooñu moom dootuñu nekk sax dootuñu éligible te bu ñu dundoon sax ba fekkee 17 ans yeneen 5 ans yu bëri nga xam ne gudd nañu far donc il faut qu'on soit réaliste quoi donc pour moi les actes yi gars yi posé na ni amuñu benn ambition et il faut il faut l'assumer waaw waaw mais d'accord mais non c'est waaw d'accord non tontu kañ moom xam naa du ñàkk mais man foofu laay boo xam ne ci ñooñu koo xam ne am nga ambition parce que boo dee primaire la primaire fu mu doon gën a amee sens mooy que au moins des partis yi nga xam ne ci coalition bi lañ bokk ñu am candidat voilà mais c'est tu choisis mais tu choisis parmi les gens yi nga xam ne ñoo nekk ci yow loolu pour moi amul du primaire mm-hmm. loolu moom mooy mooy clair maintenant maintenant en dix disant que notre relation ak président Macky Sall jeex na quel sera le rôle du président Macky dans les élections pour Benno Bokk Yaakaar est-ce que yéen yéen a ngi koy quand tu mets sur la table base politique gu Amadou Ba ak ñeneen ak ñeneen mais peut-être que son rôle soo leen bëggoon def ay résultat yu baax donc ce rôle serait serait déterminant c'est c'est un président qui qui qui fait deux mandats et ki quitte am na ci président Macky Sall perception bu nit ñi amoon ci moom avant ñuy wax affaire u troisième mandat ou non ak léegi bokkul affaire le fait de ne pas se représenter kii quand même ça a atténué un peu la tension. xam nga ah, loolu sax c'est relatif parce que bilan yi après yéen a koy teg coono mais je veux dire ce cet acte mhm. a quand léegi tey jii ne sax da ngeen wax loolu moo taxoon dëkk bi yëngu léegi bi mu ko waxee bu paree dëkk bi kii donc c'est des choses yoo xam ne man inventé wu ma donc aujourd'hui il faut quand même que ñu nekk dañu nekk dans à cinq mois des élections et il faut pas que ñu divertir ñu ku bëgg nekk candidat nekkal candidat ku am sa ay problème réunion nga ne am say problème réunion ku bëgg génn nekk kii parce que est-ce que tey jii nii waruñu xool beneen côté bi yan candidat ñoo fi nekk c'est quoi lan mooy température bi ci biti est-ce que est-ce que est-ce que c'est favorable à Benno Bokk Yaakaar ou pas c'est des questions qu'on doit se poser donc aujourd'hui il faut pas que ce ce ce ce truc là et est-ce que c'est pas une stratégie pour gën a guddal jël pour gën a guddal affaire bi gën a gën a occuper le terrain. et il ne il faut pas qu'on soit il faut pas qu'on soit naïf quoi. et apparemment léegi der il y a une conférence de presse qui est annoncée demain 17h au 16. Abdoulaye Daouda Diallo 17h lay wax. dama bëggoon euh, leeral tuuti rek ci li buuba ak Malal d'accord ci média